samay rakk lan. wax jox ma wala moo la bokk rek. kan un million laa ne ko day leer. lim la jox laa yaa ko laaj wala moo la ko bokk. déggoo li ma la wax dama ne ko un million bi day leer mu ne ma wax un million bi vraiment fu ma ko dee euh, affaire bi fu mu jógee wax ji ma xam laa xam fu mu jógee daal di wax dëgg yàlla daal di wax ma ko nag un million dina leer tey rek maa jox un million wala ma un muy ree nday saan muy ree sama yaram da après muy wax dëgg yàlla muy yëkkati xaalis nga bël ma xaalis bu bari daal ma yëkkati jox ma vraiment lekk naa xaalisam keroog. li mu la joxoon ak li la Boy Niang joxoon lool. Boy Niang bul ma waxati waxi Boy Niang Boy Niang dafa maa mos a jox xaalis. ak moom ak li la Gris Bordeaux joxoon. Gris Bordeaux moom wax dëgg yàlla Bombardier kii moom dafa maa ngëb déggal ma naan cim kii kii euh, kii nu mu tudd euh, Modou Lo dafa maa ngëbal te ba ma ngëbalee ah wax dëgg yàlla yëng naa ko wax dëgg yàlla te su ko neexoon bañ ko jee fekk ndax bu wax la nga ma ne ko man Ama Baldé faral wax naa ko vraiment loolu muy àdduna espoir la su jeex na. dañuy kaf dañuy ree Modou amul problème ah vraiment vraiment daal geste bi daal geste mu def keroog geste bi mu def keroog euh, daf maa touché geste bi yoo xam daf ma daf ma touché carrément barki Sëriñ Fallou Mbacké ndax yaakaar naa su ma su ma gisee Modou Lo neneen lay demee wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla mu yéeg dafa mataat suba teel tamit maa ngi koy gërëm di ko sant vraiment ku baax la sama xarit la vraiment. bu fekkee fekk na bu waaw buusa fekke na ko buusa fekke na ko ma nga foon buusa fekke na ko. ngëbal nañ ko wala ngëbal. ah wóoru de wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla man daal sama man daal sama bopp laa xam Modou Lo yëkkati na jox ma ma gërëm ko sant naa ko ba pare na ko nag ah Ama Baldé fa ma nekkoon ba tey laa nekk de mu ree mu ne ma am nga ci pied ma ne ko Ama laa faral ndax sama rakk la sama xarit la ñëw na sama kër ñëwati sama kër Ama lu ma xew xewle mu ñëw voilà lekk naa xaalisam ba tey tey laay doog a lekk sa xaalis nag. boo takkee ñaareel moo la dina ñëw. kan boo takk ñaareel. waaye jaaxal États-Unis ngay takkee. xamoo fa ay ay ay ay Lamine bul ma dugal xamaloo ma dara bul ma indi problème Lamine xamaloo ma dara bul ma indi problème waxaguma. léegi takk damay takk ñaareel. kii kii kii ñuy gis nii ci image ma teg ko ci montage bi. waaw photo bii nii kii la. kan ci. image bi damay jël photo bi teg ko ci ki bu fi indi problème Lamine bàyyi sa maa nuyu waa États-Unis di nuyu moo Ndiaye direct. fooy takk ñaareel xaw ma ko. xaw ma ko sa yoon nekku ci saytaane nga sa bopp bu ndaw bi xarit xarit gi dina la dakk tak ndax yaa ngi may commencé nekk saytaane ndax dem nga ba mbuur géej di woote di woo wulli di wax ak bombardier saytaane la lool ndax waroon nga maa défendre foofu waaye ne yow man sa xarit la la défendre loo ma défendre nga ma mooy yoon lool mooy sa cër naa maa ngi nuy président Mamour Kandji borom mbuur géej mooma mbuur wulli sama xarit la nag yow tamit ah wulli sama xarit la xam nga yéen ñaar samay waay ñun ñëpp say waay lan si yow sunu rakk nga waaye am na yoo xam ne wuli affaire saytaane lay def foofu. wax naan Bombardier moom laa faral. Ah, guddeeg bëccëg mi ngi faral ñëw fii di ñaan ndimbal. yow yaa ngi nii di faral Ama Baldé. voilà Ama li tax ma faral ko man wax naa ko Modou Lo keroog lu ma xewle mu ñëw sama rakk la c'est mon frère. Tapha Tine boo ko faral. non bu ma indi problème non non non non non bu ma indi problème Tapha daf maa yëg daf ma jox cër Boy Niang daf maa jox cër. ñoom ñaar faralu kenn faralu ma kenn nanu bëre bëgg ci jàmm ku daan baax na ndax xamul tax. nan seen Eumeu Sène Bombardier ko faral. kan ba Eumeu Sène laa faral. Eumeu Sène ko faral Bombardier Eumeu Sène moog Bombardier Eumeu Sène laay faral su boobaa. waaw maa ko wax maa tey nëbbu ma ko làq ma Bombardier ku mënta faral kooku laay laa mënta bëral ka muy bëral laay faral. waaw maa ko wax maa tey ay door la ma yéene ku ñuy dóor nag ju moom moomu daw ko sant yàlla la. ku fecc la ku sant coronavirus la. Gris Bordeaux kii koo faral. kan kan. Balla Gaye. dama bu ma fontoo nga am Gris Bordeaux Balla Gaye koo faral loolu day question mu faralee quoi yow nga am ay Gris amul loolu waaye loolu di waaye yow. bul ma laaj kan. Adama Diouf faral. wuli laa faraloon waaye faraltuma ko. ñoom ñaar faralu ma si kenn sax ñoom ñaar ñoo xam sama yoon nekku ci Adama Diouf moo gën a dof ñëpp. am lii sa agur bi. kuy am lii sa. seen booy boobu. ah booy bi dëkk Guèye sama booy bi laa faral. boobu ba boobu man daal benn affaire laa lay xamal. léegi bala nga ma xamal dara nag seen combat bi le de août waa ji waa ji woon nga dem États-Unis mais combat bi ñu ngi doon wax ñu ngi doon wax waxu dàq tamit est-ce que yëgoon nga information. Lamine xam nga làmb ji li ci am moo dafa xaw a luus ndax man avant ñuy waxi corona bi maa ngi for ay sources ñuy waxi ravaay te maa ngi doon préparé man sama combat dem naa États-Unis dagg sama billet entraîné ji ba ñëw préparé sama combat ma dégg ay waxi renvoyé waaye ba tey kenn waxuma waxuma dara waxuñu ma dara waxi renvoyé bi après laa waaw waaw waaw non am na neexul ci xol lu ci mënta am dañoo war a taxaw ñun wax ñu ko woo tey wax ñu ko waaye defuñu ko noppi rek ñu préparé suñu komba ma préparé sama combat ah loolu après lu ñuy lijjanti la après loolu lu ñuy lijjanti la après maa ngi gërëm moo Ndiaye bu baax. mënatu koo li mënatoo koo lijjanti. lu tax lu tax. corona bi mooy. loolu corona nan ñaan yàlla mu dem feeg mu dem ak jàmm. corona nan ñaan yàlla mu dem ak jàmm loolu laay ñaan yàlla man waaw nan fonk daal musique barrière yi suñu fonkee musique barrière rek lépp dina baax incha allah. ma ne maa ngi gërëm ñëpp. bala ngaa gërëm Baye Fall Baye Fall wiiri wiiri. Oh, Baye Fall wiiri wiiri ndeysaan sama mbokkum taalibe la te ab baay Fall la nan ko jàppale te yàlla te doon bëggal askan wi di bëggal doomu aadama yi ndax Baye Fall wiiri wiiri kat bëggal tàkkusaan bu nee def na ko fii di bëggal nit ñi te dafa am problème bët dégg naa nan ko jàppale ngir yàlla te yàlla at sunu woykatu séeréer bu mag ba. ndaysaan mbayang lum ndaysaan bégal na jaami fu kooku moom wax dëgg yàlla moom su mataar ba jotee ak ñeen dégg naa tam mi ngi bay waxo Aziz Ndiaye Aziz Ndiaye incha allah rabi xam naa dina ci jàpp moom ndax a Ndiaye day def social rek ñëpp képp koy nekk ci làmb muy ñoom jëy seen ak ñoom ñëpp ci bokk yom promoteur dañoo war a jàppale mbayang lum ndax bégal na leen fu ne sama làmb Gàmbi toj na ko lam ma fooy neex na jamay kenn sañ na cee bañ a jàpp sañ na cee bañ jàpp fu mu xew leen mbayang lum sañ na cee bañ a jàpp ñëpp promoteur yëpp ci war a jàpp ñëpp ko war a ja mbër dañ ko war a jàppale Mbaye ak Loum surtout surtout ak Modou waaw Reug Reug ak Modou fu mu jóg deen wooy ndeysaan ñëpp nañ ko jàppale Mbaye ak Loum mii man de bégal na ma dama tàyyi de waaw way weet naa di déglu ay kiyam di fecc di njuug di wàcc ba ca suuf di sàllar ñu ko gauche di sàllar ñu ko droite Baye Fall ñen ñoo ci war a jiitu Baye Fall tam ñëpp ko war a oto autorité yëpp ñu ci war a jiitu ministre de culture déglu ma musique de culture ak ñoom saa neex artistes yi ñoom ñëpp nañuy dimbalante fan yee paase nag ndeysaan yooyu de papa démb bi tamit làqu yàlla ko yaara xaare àjjana comprendre nga ñoom tey jii ku ci feew da leen war a jàppale ndax xamul tax dañoo bégal jaam yi façon bégal bu ne bégal nañ ko jaam bégal nañ ñu ko ñun voilà Baye Fall ñoo ngi koy ñaan yàlla may ko wér ba mu mun a xoolaat voilà ndax loolu la ñuy ñaan di di gërëm waa Amérique Maadou Sow maa ngi koy gërëm di ko sant ndax dafa doon préparé sama combat bi moom tamit. sa xarit Mansour Kassé. Mansour Kassé ndeysaan Mansour sunu xarit ku baax man Mansour maa ngi koy gërëm di ko. sant Modou Lo Mansour bu Liiru Jaan. Modou at Modou Lo d' waaye at man at sama sama Mansour la man tamit at yow it sa Mansour la. sunu Mansour la ñun ñëpp Mansour Kassé ah di nuyu sama rakk ji Afia at moor Ndiaye maa ngi leen gërëm waa canal ñoom ñëpp. du nuyu grand Sam. Grand Sam déglu ma rek at ma Fall. kan. borom xar géej yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm ba tam xarit tam xarit soreetul su dee day nar wala ñun dinañ ci xam dara ku ciy dem daal da nga indaal sa yat kuy ñëw man de dinaa dem te dinaa yóbbaale yat ah oui. Ah, lu ma ciy ragal. ah may la nañ ciy waxante dëgg kon di waxante yoon. day wax li am lu mën a ne ñu koy wax. moo ko dooree mu yàq la yàq ci prix kooku daa mën a yàq picc sax bay yàqaate nañ ñu dimbali nañ ñu dimbali. ban bàyyi seen yi ngeen def affaire font yi ñuy def caméra yi takk ngay ratatati di wax rek naa na ngay xar géej gi. fay ay lamb. fay fayul dara ma ñu dimbali fayul dara sa Lamine yàlla na nu yàlla suturaal. dox yi am Sénégal léegi. bu ñu yàpp gis nañ fi ay daara yu kocc jaar na fi. daara yu kocc jaar na fi sunu papa yooyu lu ne def na ko ci théâtre te tubaar ku mën dara ak saa mën dara affaire dafa doon sell di rafet mag mun na koo seetaan nga ko seetaan nag sa doom. mun ko ak seedaan ak sa soxna mun ko seedaan ak sa njaboot waaye tey li ñuy def laa xam pour lan la. waa Thiès ni ñuy def ay théâtre yu normal. non waa Thiès ñoo ngi théâtre théâtre mu normal fii sax gée Sénégal gii Géejawaay gi Ndakaaru gi am nañu ci théâtre théâtre yu normal waaye xool série bi ñuy def ñuy summi kii eh, eh, fidèle la xawma oh, oo kooku ndaw soosu di sumbi silib bi ndax waaw loolu dafa ñaaw dafa xanaa ñaalu yàlla am doom ëllëg ah waa non na rafet waay ndax xale yi dañuy seetaan dañuy roy ci ñoom ah na rafet waay na rafet. waaw kontaan naa kontaan des dafa ndànk Lamine. ma Lamine Lamine. bikit bi fii mooy ayewet kii sama bikit la xam nga fii mooy fan fii mooy fan. vraiment bikit ab yey VIP vraiment bikit Lamine sama waa jaa ngi nii. waaw sama waa dañuy sànni kàddu may ma tuuti moom moo kaay toog Mamadou Welma na dama ko namoon nag moo tax ma ñëw fi tey vraiment ma kontaan sama xarit la sama waay la ku baax a ngi nii. voilà yow kenn gënu la Mamadou Welma